fii ci Sénégal ba tey mbiru immigration clandestine gi des di bàyyi ay séquelles ak ay conséquences démb ci guddi une drame s'est signalée au large des côtes de Bargny ginnaaw gaal gi teeroon géejawaay ci weekend bi passé lim bu takku ñu daal di koy nemmeeku lu toll ci 300 personnes te ndaw yu bëri daal di ci ñàkk seen bakkan dem Espagne est-ce que jar na lu ni mel daal di jël géej pauvreté la ñuy wax mbiru ñàkk xëy bi ci réew mi. loolu mooy doon seen motivation wala mooy doon li ñu justifié lu tax ñu daal di tàmm jël gaal gi wala yoonu Nicaragua suñ sukkandikoo si jàngat bu ay taskatu xibaar daal di def si mbiru immigration clandestine te kuréel bii di organisation internationale pour les migrants daal di publier depuis le 5 novembre 2023 lu toll si 3 mille 32 mille 29 migrants jël nañ yoonu Espagne bi te 522 daal si ñàkk seen bakkan.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 le roi de l'information en temps